Thank you. c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di nuyoo si turu Ngoy TV di nuyu Sénégal yëpp waaw sëñ Mbacke gis nañ ni après timis sarax yu am solo yi nga def te dafa mel ni yaa ngi ci biir combat bi sëñ Mbacke combat bi lan la la jaral. waaw ñu ngi waaw bis bi nag bés la ci biir bés yi di soññaat bu baax a baax a baax ñeent supporters yi nga xamante ni jege nañ la ñu jàppaat ci bés bu baax a baax a baax ndax bés bi bésu baatin la bés bi bésu sarax la euh, ku mel ni Petit maa ngi koy jéem a jot léegi waaye dafa mel ni dafa saturé ndax suba ci ginnaaw tàpp sànni bari na ci yoo xamante ne nii war nañ koo génne waaye nag li ma waxoon laa waxaat nañ dalal sama xel bu baax a baax. te xam ne ndam laa ngi passé génn gu fi te bu ñu saxee ci sarax bi jàpp ci li ñu war a jàpp rek lépp dana woyof incha allahu rabbi maa ngi ci woon ak supporters yi nga xamante ni dañoo bëgg muuru te yàlla rek tax ñu jàppaat ci sarax yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu jàppaat ci sarax yi bu baax a baax a baax a baax allahu rabbi maa ngi nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp sànq mbir mi moo xawoon a satiré ay nit di ma xaar moo tax ñu gàttalu waxtaan wi waaye maa ngi waat wa rahmatullah waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné ko rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est meilleur Way TV c'est meilleur ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm ci di ko sàkku si yéen